bañ ñoo bañ ñoo bañ ñoo bañ ñoo bañ ñoo bañ Aliou Sall Aliou Sall Los

c'est ça baal wax bi waaye ngir yàlla baal wax bi amul lu ñu war a def baal wax bi lu ñu war a def dañ ko def affaire yi na moo yàgg ci ay pexe ku ne xam na ni politique ak i pexe ah. gis nga mbir mi dañoo dàq am dafa am loo xamante ni ndeexul waaye dinañ ko wax mooy dafa am ñoo xamante ni Aliou da leen di déranger am na ñoo xamante ni Aliou da di déranger ña nga ca biir pale ba ay foko yoo xamante ni tekki wu dara toju ñu fenn gaje wu ñu seen département gaje wu ñu seen région gaje ñu fenn ñoo bañ ñoo lànk Aliou rek Aliou rek change fii Aliou rek correct xoolal kii bi placé placé waat ko dafa dem quoi. pardon pardon Abi. naam naam. bay Fallou Aliou Sall. fas na bakkan sànni ko ca xaj. incha allahu bésab dund. bésab dund la bésu dee la bésu dee la. incha allahu ça c'est fini. ça c'est ko tey nappuñu ko Aliou. ça c'est fini. nañu bàyyi nangu tey duñ ko nangu ëllëg dañ ni wax danoo amul argument. fi ñu teg seen tànk kon ñun du ñu yàqal suñu géejawaay gis nañ géejawaay ni mu émergé gis ngeen fu boo gisee Pikine du roy géejawaay département yi du roy géejawaay Aliou Sall tax nan bàyyi doomu jàmbur ji ku ko juróon yërëm ko nan ñu dimbale Sonko nan ñu may Sonko nan ñu may yéen sax soxor na so saa si fii nag fii saa fii saa fii saa fii Aliou Sall du fi démissionné ci benn yoon ñun bu ñu yëg bu ñu yëg du ko démissionné ñun bu ñu yëg du ko démissionné moom waaw. loolu am te moo la benn gis nga Sénégal ñett nit ñett nit non non merci. li waral suñu taxawaay tey mooy dañu ñëw pour soutenir suñu maire je me présente d' abord madame Ndiaye Seynabou l' amicale des agents municipaux de la ville de Guédiawaye ñun dañuy wax fii ci turu mairie Guédiawaye ndax fii la nekkoon man depuis 98 je suis agent la ville de Guédiawaye kon ay maire yu bari jàll nañ fi fekk ba fi defe naa bu njëkk a jaar Guédiawaye rek bu mos a jaar Guédiawaye fi nga ba fekk depuis Chérif Macky Sall à nos jours Aliou Sall fa fekkoon mairie Guédiawaye ñun ñi fi nekk ñun ñoo ko xam. ndax li olof di wax ki tëdd ci lal bi moo xam màtti lal bi kon ñun ñun ñoo ko xam waaw ba tax na nag bi coow luy jógee ñu degg ay nit yi wax naan dafa war a démissionné ñu taxaw jël les devant di ko xamal ne ko du démissionné tey du démissionné ëllëg ndax nag moom falul boppam askanu Géejawaay ñoo ko fal te soxla nañ ko ba léegi waaw ah man de néew ma du fi dugg mais de li mu bëgg a wax su fekkul mu méngoo ak li ñu bëgg duñ ko may fu mu waxee waaw. Laissez-le travailler. Laissez-le travailler. mais yëpp ku nekk yaa ngi ni di laal bu weer bi dee nga jënd saako sa saako keeb jox ko sa yaay kon ñun tey Aliou bu demee ñun lan la ñu def ñu yaayi ñu ñoo jooy di xa sa xale di def ni ñun xam nañ ñun suñu yaay ñu ngi seen gannaaw Aliou nañu bàyyi Aliou Aliou toogoon jëjiwaay ñun xam nañ lan la ñu jëriñ ñi nekkoon fi jëjiwaay depuis ay at at at at Aliou Aliou Aliou ñu koy catu bu ñu ko catu nañ ñu dimbale Aliou mu bàyyi ñu jëjiwaay ñun jëjiwaay Aliou la ñuy yaakaar xale bu ñu def ni ñun xam nañ ah, parce que xale yi yàgg fi te xale yi daaw ñu liggéey kon tey Aliou bu nekkee tey ba jël xale yi yëpp liggéey ñun tey gi jooyantuñu saako bu weer bi xale yi ñooy jënde saako teem. waaw soo bëggee gagné da ngay liggéey bu ñu fekk ñu liggéey ba dëkk bi set macha allah ngeen bëgg a ñëw di ñu xokkatal ay ñoo xamante ni am ëndee ay dañuy daganal ay ngóor jigéen te góor jigéen gi ñuy daganal boo leen ko boo leen boo àndee ci vie bi loolu moo fi am ñooñu nag ñi waxoon loolu démb ñooñu ñoo kon ne tey jii ña nga xam ne ñoo amoon intention Aliou Sall jóge fi yàqal président de la république mënuñu ko sénégalais yi dofatuñu xàmmee nañ liy njariñu sénégalais yi ñooñu ba léegi ñoo continuer nekk ci seen combat bi nga xam ne ci lañ nekk di continuer mais nag ñun waa géejawaay jóg nañ taxaw géejawaay debout derrière Aliou Sall pour que li nga xam ne mooy intérêt géejawaay mooy géejawaay l' émergence géejawaay jëm ca kanam pour ñu ko secteur Sénégal yëpp defee amul benn doomu géejawaay bu nga xam ne fi ne nga ko dëkk Almadi wala Mamel parce que géejawaay bu nekk ñu on est fier de Aliou dëkk géejawaay on est kon nag ñi ngi remercier population Guédiawaye bi nga xam ne ñëw nañu ànd ak massivement pour taxaw soutenir suñu maire ànd ak moom ci combat bi jëlal ko suñu bopp ñi nga xam ne nag ñooy ay góor jigéen ñi nga xam ne mooy Ousmane Sonko Serif Aboukal Sall ñi nga xam ne ñoom ñoo jóg am ñu nekk ci seen ginnaaw di leen yàqal di leen di leen bu ñu demee bitim réew nekk ay ay ay formation ay góor jigéen bu ñëwee fii di diaboliser doomu Guédiawaye dañuy taxaw ni salsi fii on arrête Sonko na taxaw te xam ne du moom mooy taal Sénégal Thierno Alassane Sall nga taxaw xam ni moom du moom mooy dara taxaw fi barki Dembo Ndiaye bëgg ñu def la ministre finance defuñu la ministre finance nga taxaw di santé di def nekk maire yooyu il temps mu jeex beneen bi si topp ki nga xamante ni mooy Abdoul Mbaye dafa taxaw ni président Macky Sall bi muy jënd carte li ma président Macky Sall defal sama baay Kéba Mbaye defalu ma ko démb nga boo waxee démb nag day ji président Macky Sall yaa gën la nga daganaloon démb tey yi nga araamal ko donc dañuy xam ni kon ñoom yàq lañ tax a jóg mais defaruñu donc lii rek lañu wasalaam. yi taxaw temm ne loolu du fi amee euh, yan kàddu ngay indi ci loolu euh, ak ban jàngat nga ci am. waaw lii dafay firnde ni géejawaay marron géejawaay bu marron wee tey ñu mun ko wax c'est parce que Aliou Sall daf ci am liggéey bu am solo mu def lii message la boo xam ne dañ koy lancer le président de la République mais lancer wuñ ko opposition parce que opposition amul géejawaay il faut que ça soit très lii géejawaay wax mooy. bu amee pour démissionner ci li nga xam ne mooy ay bëgg-bëggam na ko def fa muy liggéeyee fii du caisse de consignation fii géejawaay la. mais yéen jàppoo leen ni boobu bu koy def it euh, yéen waru leen ci am euh, maanaam ay euh, xaaj ak seen wala ngeen ci indi benn maanaam xët-xët ci wàllu woowu ndaxte neen doon na loo xamante ni en toute responsabilité da koy jël. tey géejawaay moo daje muy góor rawatina ndaw ñi pour passer benn message mooy fii nga xam ne mooy hôtel de ville bu géejawaay moomee lu ñëpp la. waa Géejawaay ñoo ko jox dañoo bëgg sénégal yi xam ne fii maire Géejawaay moo fi nekk buy démissionné ci caisse de consignation na ko def fa mu nekk. te ci loolu it président de la république mësu ko bëgg nommé Géejawaay moo génn dox ba pale te gri palais mu jox ko poste de responsabilité boobu dañoo bëgg mu leer bu joxee xelu nit ñi maintenant su demee ba di démissionné ci li nga xam ne mooy caisse de consignation wala li nga xam ne moom mooy mai bu Géejawaay dafa jaadu ni Géejawaay taxee woon dem ba palais ñu nommé ko. noonu la géejawaay di taxawaat ne ko duñ lan duñ la doo démissionné parce que li opposition bi di demandé ñoom joxuñu la ko da leen a dóor ba président fal la te président dafa ne woon du ma fal sama rak falul am mais géejawaay moo gagné tous les élections fii ci liggéey bu am solo bu mu ànd ak waa géejawaay. da ngeen ba mu ñëw. Euh, tey bu ñëwee benn baat la ko gars yi di wax mooy lan dellul sa bureau dem liggéey tey loolu moo am solo tey géejawaay ñoom message tey di ngi leen def benn plan action boo xam ne danañ ko déroulé fii ci géejawaay. déroulé ko feneen ak fudul géejawaay wane ni kat Aliou Sall doomu Sénégal la même su nekkee rakku président de la république sénégalais yi témoin lañ presse bi témoin lañu am na fu ñu fekkoon géejawaay depuis 1960 tey ku ñëw géejawaay gis nu mel xam na liggéey na fi liggéey bu am solo donc li ci des mooy ñu ngi xaar mu yegg si boobaa incha allah li ñuy def dañ non dañu dégg ci presse bi am ñuy influence opinion bi loolu moo tax ñu njort loolu te dañ nangu ko ñu bet li ñuy def ku fi ku mu fi fekk di ko xam. mais ñu ngi toog di xaar bu ko yegg bu ko defee la presse dina ko fekkee. non léegi léegi am na groupe bu ne dañ koy bàyyi mu ñëw dugg si wax. bu waxee ba. loolu loolu waxu groupe la. waa Guédiawaye laa wax ñoo fi nekk bu leen fi presse bu fekkee bu dee Aliou Sall dina fi ñëw li fi xew dinañ ko xam mais nañu xam ni waa Guédiawaye ñoo fi daje ñi ko faloon ba président Macky Sall am premier mandat am deux am second mandat jox ko majorité à l' assemblée nationale jox ko majorité ci parrainage jox ko majorité référendum. tey géejawaay boobu moo taxawaat pour ne du ñu nangu mu démissionner wala muy jox opposition benn argument politique parce que opposition amul géejawaay c'est ça. non Aliou bu mu démissionné ci mairie géejawaay yi parce que géejawaay waa géejawaay ñoo ko fal waa géejawaay ñoo ko jox majorité Aliou yàgg naa yàgg naa war a mën a dugg ci gouvernement bi duggul ci gouvernement bi waaw waaw. Euh, que les Nous pensons tout simplement que c'est de l'affection envers une population et son maire. Effectivement, il devrait peut-être pouvoir le laisser parler. En tout cas, moi, je reste convaincu que le président Alun Sall ne va pas démissionner. Parce que personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit sur la gestion de la caisse de dépôt et de consignation. personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit pour la gestion de la mairie de Guédiawaye. Maintenant, les Sénégalais doivent savoir que BBC, en l'occurrence, en l'occurrence qui est l'auteur principal de ce reportage fumiste, ne veut pas déférer à la convocation du, de, du, du procureur. Cela veut dire que toutes les allégations de BBC et de Mayenne Jones sont fausses. Cela veut dire que ces gens sont animés d'une mauvaise intention qui est de détruire la stabilité politique et sociale du Sénégal. Et cela, nous ne le laisserons pas passer. Alioune Sall a porté plainte ci olof ñu euh, nga xam ne moom moo xew jamono ji euh, point bi Alioune Sall war a amal lan mooy situation bi ak yow nan nga ko jàngatee. ndaw ñi nga gis la macha allah géejewaay kenn desul dafay wane ne ñun waa banlieue dafay wane ne ñun waa géejewaay dañoo xër ci suñu maire kenn du wax maire mi ci seen kenn du wax personne ne va parler waaw personne ne va parler kenn du wax waxlo wuñ kenn waxto la kenn kenn waxlo wuñ kenn personne ne va parler on ne sait pas